Et gouverneur de la région de Fatick. Oui, merci. Euh, aujourd'hui, il était question dans le cadre d'une rencontre dédiée aux préparatif du Gamou annuel de Cheikh Sidil Kher de venir avec l'ensemble, les membres plutôt du comité régional de, de développement, y tenir une réunion, mais aussi discuter de tous les problèmes auxquelles euh, peuvent être confrontés les organisateurs dans la prise en charge de cette journée. Il est vrai qu'on est revenu sur euh, beaucoup d'aspects. Euh, il y a eu, comme on a l'habitude de le voir, la question de l'hydraulique, la question de la sécurité, euh, la sécurité proprement dite avec la gendarmerie, qui est compétente dans, dans cette partie du compétente plutôt dans cette partie du territoire, mais aussi de la sécurité civile. qui doit être assurée par euh, les sapeurs-pompiers. Mais au-delà de cela, il y a aussi d'autres aspects euh, liés à la santé, liés euh, à la prise en charge, surtout euh, des, de l'assainissement. Il y, a aussi, il y a aussi le problème euh, de la salubrité euh, qui a été soulevé. En tout cas, sur tous les aspects sur lesquels le comité d'organisation a eu à interpeller l'administration de la région, les services qui étaient là ont quand même pu répondre. Et c'est le lieu aussi euh, de saluer la forte implication de la commune de Diofior à travers son maire, mais aussi euh, celle du conseil départemental, ici représenté euh, par son vice-président, M. Détidjouf. Et il y a eu aussi la présence du préfet du département de Fatigue, le sous-préfet de l'arrondissement euh, de, de, de Fimla, mais aussi euh, tous les secteurs et tous les services que, dont la présence était nécessaire dans le cadre de cette rencontre-là. Nous espérons qu'à travers les engagements qui ont été euh, pris par les services de l'État, mais aussi les services qui travaillent en étroite collaboration avec l'État, comme le concessionnaire CEU, que nous pourrons espérer une bonne organisation dans les jours à venir pour cette manifestation. Euh, Bismillahirrahmanirrahim. Euh, man maayu maire Diofior euh, tudd Youssou Diom maa ngi nuyu mbokk waa Fatick yëpp ak mbokk waa Sénégal rawatina donc suñu mbokk yi nekk ci euh, département de Fatick ak arrondissement de Fimela mais aussi Diofior commune bu ma fi nekk fii tey nag dafa am journée bu rëy bu ñu doon def tey di CRD donc mu nekk benn réunion bu ñuy wax CRD boo xam ne madame le gouverneur de la région de Fatick di Seynabou Gueye moo ko doon présider ànd ak euh, commission bu takku di préfet de Fatick d'abord mais ak chef de service yëpp ñuy ñëw ji def un CRD spécial pour organisation Gamou Chérif Bounana Aïdara boo xam ne euh, Cheikh bu Bouya moo ko jur euh, di doomu Cheikh Sadibou Cheikh Bounana nag Gamou boobu le vingt cinq février bii lañ ko war a def lu tax nag euh, ñuy def CRD boobu lu tax ñuy def gàmmu boobu dafa am lu tax bu Chérif ay dara daf fi ñëw 1952 ànd ak ak euh, papam di Cheikh Talbiya Cheikh Talbiya ñaan fii ñaan bu rëy Chérif ba Chérif Bounana ci boppam finalement mu def fii Diofior di ko wayam à part Nimzat ci Sénégal yëpp euh, Diofior rek la Chérif Bounana am kër am dëkk mu nekk fi nekk ba doomam yëpp Euh, yàlla def ñu juddoo fi ah yàlla di euh, àdduna di dox ba en 98 mu nekk xalif général des cadres kulli cadre donc euh, xalif général non seulement de cadres Sénégal mais Mauritanie Guinée Bissau ak Guinée ak sous-région bi yëpp mu nekk ci ba yàlla def doomam bii bu ñu wax Chérif Sidil Khayr wuutu ko ren nekk la xalif général des cadres kullu cadre de toute la région et de toute la zone ouest africaine moo tax CRD bi ñuy def tey pour gam boo xam ne dañ ko dégtal Chérif Bouna loo xam ne chaque année dañ koy def mu war a nekk le 25 février mu nekk un CRD spécial bu am solo léegi nag ci CRD boobu euh, préfet bi mu ñëw euh, gouverneur bu mu ñëwee euh, chef de service yëpp jël nañu jox nañu seen engagement ci wàllu yëpp ku nekk wax na ne dina def ni def ni yëpp daal Euh, yemm na maanaam laa bëgg a wax euh, préparatif yu ne maa ku nekk jël xam na engagement ci wàllu mairie bi nag dafa am un rôle spécial lu ñu ci war a def parce que yëpp fii ci Diofior la ñuy nekk ñëpp Diofior la ñuy ñëw donc euh, ci wàllu assainissement d'abord mairie bi jël na engagement kër yi xam ne ñoo jege la famille chérifienne ak tous les sites d'hébergement mairie bi dina vider donc toutes les fosses septiques donc dina def assainissement dëkk yooyu kër yooyu yëpp dina ko def bon ci wàllu ndox mi jël nañu aussi engagement bon euh, ministre kii service hydraulique d'abord de de Fatick dina indi citerne ak bâche mais ñun aussi dañuy recenser tous les sites yoo xam ne euh, amuñu branchement ndox ñu fexe ak euh, CO ñu fexe ba ñooñu ñu jox leen ndox ci wàllu éclairage public aussi mairie bi daf ci am wàll bu am solo parce que éclairage publique bi xam ngeen ne Diofior biir euh, bu rëy la surtout quartier périphérique yi euh, amaguñu courant zone bu ñu nekk nii nag dafa bokk ci zone zone fu xam ne fu la fi la shérif bi nekk dafa bokk ci zone yoo xam ne si quartier périphérique nga xam ne courant bi bari fi kon nag euh, foofu aussi mais mairie jël na engagement dina yokk éclairage public bi mais nag Senelec ci boppam moom la ñu gën a interpoler parce que dafa am ay poteaux yu bari yoo xam ne poteau en bois yoo xam ne poto yooyu yàlla dafa def poto yooyu itam euh, dañu maxe dañu daanu donc il faut que Sénélec remplace poto yooyu su ko Sénélec remplacé maire bi ci boppam euh, fu lamp manqué incha allah dinañ ko defal euh, ñu ngi ñaan aussi état bi suñu mënee gën a appuyer ci éclairage solaire bi parce que quartier périphérique yi dañuy soxla éclairage solaire ah loolu aussi suñ ko amee du baax la ñu ngi gërëm président de la république ci éclairage solaire yi lampadaire yi parce que tali bu mag bi moom waa macha allah yëpp am na làmp mais tali bi xam ne moo ñëw kër Chérif euh, làmp yi dafa ñëw ba wetu kër Chérif làmp yi manqué foofu donc ñu bëgg vraiment président moo tale ko euh, ci euh, ci wàllu ordures yi aussi jël nañu engagement que dañuy dindi tous les dépôts sauvages mais dindi dépôts sauvages comme gouverneur nu mu ko waxee doyut dindi dépôt sauvage yi après dépôt yi continuer aussi baaxul il faut ñu sensibliser population mais ñun am nañu projet au niveau de la mairie un projet de déchetterie projet boo xam ne dañuy wut benn dépotoir fait au nord ouest dañuy ko xool ak euh, service environnement si le site est est bon incha allah dañ koy euh, clôture ak grillage après ñu tuur foofu di traité foofu même ordures yi am nañu aussi ay euh, partenaires. Euh, de Limoges ak euh, Panadol ñoo xam ne ñu ngi ci dimbali pour ñu def un vrai projet de gestion de déchets mais pour mën a dindi dépotoir yi ak kii euh, ñu ngi ñaan aussi UCG ak Sonaget ñu dimbale ñu ci ay camions pour ñu mën a dindi dépotoir sauvage engagement yooyu daal moom la mairie jël ci wàllu CRD bi ak ci wàllu préparatoire